Sénégal yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf loppu tuuru la ñu wax li xew démb ca njël ca ngën sarga ca sàkkal ga ca Louga l'observateur nee nañu mooy de trop. yéenekaay bi accident bu metti ñaari wata yu mbëkkante ci kaw tali bi ba ñaar fukki doomi aadama ak ñaar faatu ca ñaar fukki nit ak ñeent jëlee ci ay gaañu-gaañu yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne am na ci ñoom juróom-ñeent yoo xam ne seeni gaañu-gaañu garaaw nañu benn kaaru njaganjaay bu yaboon ba fees moo doon moytu benn mbaam bu ne woon ci kanamam ba far daje ko camion bu doon ñëw ñaar fukki nit ak ñaar yi des ci boobile accident seeni seeni identité ñi ci accident démb ca sàkkal tribune ñu ci juróom-ñetti fan ñaari accident am nañu ci réew mi ba yóbbu juróom-benn fukki bakkan ak ñeent libération na ko ëpp na ko boo boolee ñeent fukki nit ak ñaar yi faatu woon ci accident ba woon ca 6 kilo ak ñaar fukki nit ak ñaari ñàkk seen bakkan ci accident démb bi ca ngën saar ñooñee bu ñu fekkee borom moto bi benn borom oto mbëkk ca Kédougou ba mu ñàkk bakkanam dafay doon juróom-benn fukki doomi aadama ak juróom yu ñàkk seen bakkan ci réew mi ci accident boo boolee la xewoon ca 6 ko jàngate moo di ab semaine bu bari lool deret ci kaw tali bi sud quotidien nañu la la xewoon ca Kaffrine ronxañ ja yeneen i bakkan yu tëddaat ci tali bi Le Témoin L'As Vox Populi Enquête yéenekaay L'Info journal Les Échos ñoom ñëpp ci accident bu métti bi xew démb ci la xëy yamale seen xët yu njëkk Soleil national nañu réew mi sóobooti na ciw tiis ab kaar moom bëkkante akub camion ci yoon wi dox ci diggante Louga ak Ndar ba ñaar fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan ñaar fukk ak ñett jële ci ay gaañu-gaañu ci ñoom am na ci juróom yoo ne seeni gaañu-gaañu dañoo a mujj mi ñoo ngi koy wër wër gu metti journal bi mi ngi ñuy xamalit ne wata bi yaboon nit ñi dafa defoon surcharge surcharge soon na lu toll ci fukki nit ak juróom surcharge dëgg journal bés bi le jour nee nañu mooy Mansour Faye Mansour Faye ministre des transports yéenekaay bi nee nañu surcharge la ci président Macky ndax rapport Cour des comptes bi génn na fi Mansour Faye taq ci ripp ñu koy lijjanti pare gu ñu accident yi tegaloo ci réew mi bakkan yi di rot ñu leen di jooy ronxañe feragul transporteurs yi réew mi ñëw yokk ci xar mi karaw ne dañuy sóobu cib gerew ñoom transporteurs yi réew mi bëgg a dem cib gerew réew bu ñu waxantee dëgg mooy gerew bi sens ne ku nekk cib dëj di jooy juróom-benn fukki bakkan ak lu teg yu des ci tali bi ci accident foofee di fa wax waxi gerew jaaduwul li indi gerew bi mu di mesure état bi jël direct news nee nañu premier ministre Amadou Ba nee na tey la état bi gën a taxaw tey la gën doge ci ñu appliqué ko Walf Quotidien ci waxi politique ci la xëy appliqué wu yëral xët mu njëkk journal bi li mu bind moo di coowal troisième candidature bu Macky Sall bi yëngal na majorité ma ca wax keroog ak la mu ca wax tontu ci xët mënee suta toog ci der ba noppi di jëw yàpp muy moom Abdoulaye Wilane di keneen ku nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar te àndoo ci troisième candidature bi Macky Sall lii ngor moo di nga buub say kaake jóge ci biir Benno Bokk Yaakaar maire bu ànd ci troisième candidature bu Macky Sall bi mooy Mamadou Gueye maire bu jidde caaray kaw investir na Macky Sall jël parti ba mu yoroon tas ko seeyal ko ci biir APR ba noppi nag ne fu mu yam neex gaaw la koy def journal Les Échos mel naan ko ndax doo xooli keneen ne ñaari bër yi mu di Zarko ak Ada Fass Les Échos nee nañu CNG bi suspendre na leen aj na leen un an atum yàlla moo xam ne duñu ko bëre li ko waral Les Échos nee nañu moo di ci seen combat keroog bi dañoo dépassé heure bi ñu waroon a bëre